mbokk yi ak xarit ñu ngi nuyu dina jaajëfal euh, ci teewlu bi seen émission face to face euh, dellu nag ñu ngi fi nga xam ne euh, mooy Pikine bu ñu fi ñëwee ki ñu fi indi na ko ko am solo la muy le maire Malick Konté moo fi doon moo fi jiite woon commune d' arrondissement bii di Euh, Pikine Est ñu fekk si ko fii nag euh, ci euh, këram nekk kon Pikine Icotaf moom nag xam ngeen ne mi ngi woon ci parti socialiste te démissionné na fa avec fracas créé mouvement woon tuddee ko wàllu askan wi monsieur le maire Malick Konté ginnaaw bañ la nuyoo jaajëfal la ci ni nga dalale fii sa biir kër waa équipe face to face bu télévision Futurs Médias ñu bàyyi la nga nuyoo Sénégal yi lay seetaan. Euh, maa ngi nuyu di leen sant di ñaan yàlla Sénégal la war si jàmm di ñaan di ñaan kilifa diine yi kilifa aada yi. clergé bi ak ñëpp koo képp koo xam ne ngi yeewu Sénégal. di ñaan yàlla seen rajo bi di la télévision rajo yëpp. yàlla def ci jàmm. ah amiin monsieur ñu ñu door nag euh, euh, ci sa sa portrait. yow yaa ngi juddoo fii ci Dakar euh, bés bu neex nag di 31 décembre yow moom sa 31 euh, décembre bu jot moom Sénégal yëpp dañu la war a wax ne ah happy birthday <laughs> boo nakaak euh, bientôt bonne année ah et puis nga judd nag 1961 donc tout tànk nga daanaka yow ak président Macky Sall yéen a maase bokk génération sa profession nag ci wàllu gestion la rawatina comptabilité Euh, sa réussite euh, bi gën a mag mooy euh, na nga ubbee société boo xamante ni dafay yëngu ci lépp lu jëm ci wàllu jën di mareyeur ak yi ni mel ak i tamit société boo xam ne ci bâtiment tamit lay yëngatu sa déception bi gën a mag mooy problème bi nga am ak ki fi nekkoon maire maire bu Pikine di Pape Sagna Mbaye boobu moom dama danga ma koy dencal rek ba ci biir émission bi ñu yaatal ko mhm. ndax xam naa du xaj ci portrait bi sa sa sa regret bi gën a metti nag nga ni ma mooy sa emprisonnement li tax. li tax euh, emprisonnement bi metti ma mooy nit ki boo deful. Mm-hmm. waxuloo te ñi ñu waroon ñëw taxaw. Mm-hmm. taxawuñu te ñaar ñi jàppoon ne association de malfaiteurs fàttali naa la ko wax. Mm-hmm. benn malfaiteur dañ ko defal sursis un an bàyyi ko mu ñibbi. te kooku la transaction xaalis boobu ñoo xam ne ci moom doon jaar. moo doon dem di retirer xaalis bi à la banque. moo doon arnaquer commerçant yi. kooku ñu bàyyi ko mu dem. même appel bi woo nañ ko ñëwul te appel ba léegi délibéré bi ñëwagul renvoyé nañ ko trois fois je me suis dit que kon kon an association de mal malfaiteur bi donc ma dugg kaso ci kaw ay affaire politique yoo xam ne xamoon nañ ne dama doon gêné vraiment euh, mu metti ma waaye aussi ma santaat yàlla mais bëgg naa dégg tamit ci euh, euh, li nga wax ne bokk na ci sa regret yi la nga bokkoon parti socialiste waaw parce que xam nga fi nga juddoo mhm. màggee fa yaroo fa mhm. yaroo fa ay soti boo xëyee woon ko ginnaaw te xamoo lu loon foofu mhm. te Ablaye Wade woowoon ma digoon ma ay teranga pour ma rallier mhm. ma bañ ndax Tanor mhm. ma dem ba chaviré comme ni ma ko waxee du pour question dama contre Barthélemy c' était pour éclaircir le Sénégalais j' ai dit que il a dit que moi des blessés et des morts pourtant assise la nekkoon mais ci biir kaso bi la ñu négo la la ñu négocier def ko fa député. ah dañoo négocier ci biir kaso mais def ko fa député pour alliance bi. mu génn ñu def ko député def ko liberté provisoire pourtant seet nañ ko ba Kédougou man j'ai pas tué j'ai pas vendu amul problème mais du député du ministre du kenn ko ma seet ba pare sama coordination bi nga xam ne maa ngi jënd carte dañ ko dagg jox benn bi jarbaatu tanoor dudu mot benn bi ñu renouvelé ko sama gannaaw du comité bu ñu ma jox du section du section de coordination ñu liggéey di ma fépp mais ñooñu ana ngor mais parti socialiste ba nga fa nekkee ba léegi ndax euh, ni nga ko waxee foofu nga juddoo yaroo fa màggee fa euh, euh, tey mosuma laa dégg si benn nombre tant que au niveau de l'état ba ba parti socialiste. mosuñu mairie bi ma fi njëkk nekk en 96 maa ko ñefe gañe ko. mairie bi ma nekkaat maa fi ñefe gañe ko. mosuñu maa fal te mosuma xool pal googu. même conseil économique et social. digoon nañ ma ko. war ma. ñun fi def député tey jii ñu nekk ci département bi. maa njiitu parti socialiste. mais dañoo def député mais man du ma taayif te ñooñu seen wërsëg la yàlla nañ ko muurloo parce que samay xarit lañu donc su ma ko demoon xëccoon doomu tànk wala ñu xëcc kon bàyyi naa parti socialiste bu yàgg. Euh, monsieur le maire Malick Konté euh, sa plat préféré lu neex la di ceebu ginaar sa musique préférée mooy sunu mbalax mi yow da nga bëgg sa réew justement sa réew bi nga bëgg hmm. euh, jamono ji lan moo la si gën a énervé li ma ci gën a énervé hmm. mooy liggéeyuñu xalaatuñu askan wi hmm. xooluñu économie bi xooluñu xiif xooluñu baykat yi xooluñu nappkat yi xooluñu étudiants yi xooluñu paj mi xooluñu réew mi nu muy doxee campagne électorale en permanence ak di weerante ñii di menacer fii kii naan maay doomu diw maay sutu diw maa mën lii kii naan damay taal dëkk bi kii naan bu ñu defee nangam nangam mais dañoo yàpp sénégalais yi. Euh, ak yeneen nag euh, euh, ci biir. Euh, yaatal bi yaatal bi nag euh, euh, léegi léegi lay doon ñu dem rek ànd ak sama doom ji Jatu Njaay ñu defaraat kanam tuuti fomp fomp jekk-jekkalaat mm-hmm. daa dellusiwaat nag yaatal émission bi tout de suite après lu ndaw lii rek ñu demaat ñëw. monsieur le maire Malick jamono jii lan mooy sa activité si lan ngay yëngatu. waaw mooy dama ne bu ma sante yàlla ba pare julli ci bi. Mm-hmm. sant samay ñaari waajur sant Sénégal yi maa ngi delluwaat sama activité bi ma nekkoon. oui parce que man marieur laa woon. Ah, ma nekk xale. ubbi agence immobilière. di def bâtiment yëpp. naa ci. kon léegi yaa ngi yóbbu ay jën di kii et puis ça bien. alhamdulilah. ça marche très bien. lii euh, euh, ni ma ko waxee si njalbeen euh, ci sa portrait sénégalais yi seetaan nañ ko yaa fi nekkoon maire Pikine Est jamono ji nga xam ne nekkatuloo maire lan nga gën a regretter. li ma gën a regretter rek mooy action yi ma daan def. Mhm. géré wul sama commune. boo demee à la perception je crois que maire yi nekkoon Pikine yëpp. Mhm. maa ngi leen gën a crédible. Mhm. ñaareel bi. dama daan dimbali population bi. daan joxe ay kaye. ay bic. ci rentrée bi. di dimbali imaam yi ci ay xew tabaski chaque année ku nekk ma jox saxaar. délégué de quartier ku feebar ma jël la en charge étudiants yëpp. wax dëgg yàlla mairie bi ma ko doon teg ay loxo yu wóor. di ko doxal boobu bu ma saan sa mairie bi vraiment da nga daan sax fii ay daa jàng fi am ou ay daayira sama kër aussi idem donc amoon naa ay projet yu ma entamé woon. comme eggali ko. par exemple projet yi mu entamoon moo doon tabaxaat ay classe jàppalewaat imam yi jàppale population bi jàppale xale yi alors cette commune bi créé emploi demoon naa ba bitim réew yàlla may ma fa ak waa ak Italie ñu mayoon ma fa ci jamono yooyu ay lal benn hôpital bu ñu déséquipé woon mais jamono yi li ñu ma laajoon ci ay tax dafa cheroon on prépare encore ay voyage pour ay oto yu ñu doon mais pour transport élèves yëpp. Mhm. yàlla àttee ndogal bi ñu dal sama kaw. Mhm. ndogal boobu nag euh, mooy nga euh, tëdd prison lu mat euh, atu yàlla. ba tax na élection locale yi ñu weesu <coughs> yow baataloo campagne mhm. donc mënoo woon défendre ce bilan. ba nga génnee ba léegi nii est-ce que par rapport justement ak sa passage prison boobu. est-ce que amuloo benn kersa benn gêne wala. xam nga booy am kers ay su dara fekk nga def. Mhm. nee naa la am na fi ay maire yu fi jaar jaay ay hectares ba ci Pape Gora Thiam. Mhm. boo demee lu ko dalee entrée Lobatt Fall ba tribunal lu Guédiawaye ay hectares la. Mhm. parcelle bu jigéen daw 15 millions lañ ko jaayee. daawul ñang jaay ay parcelles yu dul jeex maire socialiste fi jaar yi amul kenn ku fi jaar ay parcelles ñoom Pape Diop boo demee Dakar yaa ngi dégg ba ci stade de la Renaissance bi. ñi fa nekkoon ñëpp xamul histoire nu mu demee mais yooyu yëpp tey ay almadi mais ñu kenn jàpp leen man 52 mètres la de cantine te cinquante mètres yi daawul moo ko joxewoon joxoon na pas Dame Diop 27 mètres donc c' était 104 mètres de long Pape Sagna Mbaye bi mu ñëwee moo ma ne moom ak doomu Dame Diop Samba Fall ñooy reendoo cere castor parce que ku mu indi soble te moom mu ngi Maïslande billaahi wallaahi moom ma ko sant. Mhm. ma joxe cinquante deux mètres effectivement commerçant yi wax nañ ko devant le juge le juge était présent. Mhm. mais li ma dérangé mooy le fait que le commissaire Teneng xam nañu ne commerçant yi noonu ko Pape Sagna Mbaye moo ko sant Malick Konte convoqué wuñ ko le juge ñu war leen jugé nanga wuñu convoqué Pape Sagna Mbaye ba fi may wax yow nii donc ñu toogat encore ci la préfet Mbodj cité naa ko bi ñu fay toog man la woon Dame Fall euh, Fallou Fall Mbaye Seck. Euh, euh, Babacar Sène actuel maire de Thiaré ñoo fa toog Pape Sagnamay ma posé que la question kan moo la ko sant sa diggante ak yàlla ak sa aqulay taala mu ne Malick Konté maa ko sant ñu toogaat en conseil municipal Samba Niang posé waat la question mu ne ko lépp lu fi Malick Konté def ci affaire marché Thiaré ba ci marché yu nekk yëpp mu yor àll marché maa ko sant le préfet présent donc bu ñu demee man ba ma gis ku mel ni ñoom Lamine Diodji 1800 mètres carrés lañu lañu lañu jox dañu ko jaay avec li ma dégg. mais ñooñu dañ ñëw rek ñu def liberté provisoire ñu dem seen yoon ak ñi jaay hectare yi milliards yëpp ki jàpp luñ ci kenn mais man 52 mètres de cantine suñ ma ci jàppee te mu wóor ma ne encore li ma ci naqari mooy dañoo jël ne euh, expertise affaire bi te cantine yooyu kenn du ko tabax c'est titre précaire et révocable donc commerçant yooyu am fitu tabax urbanisme war na leen jàpp ba tey cantine yaa nga fa te kenn changé wul tur yi ñu ko joxe woon ñoo seen bopp ci seen coobare bopp mm. donc kooku ko bëggee expliquer sama kanam moo tax ma ni man j'interpelle le chef de l'État en tant que le premier magistrat de notre pays j'interpelle le procureur le procureur de la République nañu xoolaat mbir même sama appel oo nañu Mbaye Seck mi nga xam ne moo doon encaissé xaalis bi moo doon def démarche diggante commerçant yi ak man te ne jox na may xaalis te du dëgg ñaari commerçant yi ku nekk ne jox na ko 4 millions pour gis ma mais xanaa gis Macky Sall sax jarul million mm-hmm. mais bi ñu ma dara dañ ko ne aw ana kayit yi te man jox kayit bu ne Malick compté woon ak devant bi. Mhm. maintenant man man nag monsieur le euh, euh, euh, ñaar jaaxal na ma bu njëkk bi mooy maire bi nga tudd di Pape Sagné Mbaye mu nekkoon na ancien maire de la ville de Pikine. Mhm. xanaa kay moom mën na la sañ rek na defal ma lii aveuglement nga dem def ko. non <coughs> xam nga daawul ñoom Ndiaye. Mhm. boo duggee stade Thiar station Thiaroye bi. ñu dugg Thiaroye am na benn poste courant daawul moo tajoon kantingu paa yooyu. pour mu am benn accès ci biir ak euh, euh, kii bi centre commercial bi. compenser paille ci ginnaaw. comme l' administration est une continuité. mu ne woon sax moom Pape Sagna naa jox cent quatre-vingts mètres yëpp. mais moi j'ai refusé je n'ai donné que cinquante deux mètres. Modou Diop vingt mètres Mbaye Seck euh, Dame Fall trente deux mètres muy cinquante deux mètres. te moom ma ko sant encore commerçant yi toogaat nañu encore ci kanamu juge bi ne ko ba toog nañu bureau Pape Sagna Mbaye loolu benn du ñaar ñett. mu ne Pape Sagna Mbaye moom ma ko bu ñu la bëggee dugal ci dañ ma dañ ma dañ ma encercler def lu leen neex mais dañoo fàtt ne yàlla mooy fax ji di maa yuri di dama ko jàppee comme dogalu yàlla mm-hmm. maintenant cabal euh, politique bi euh, euh, ñan ñoo ko mën def au profit wala au détriment de kii <coughs> parce que lu tax mu amoon <coughs> mooy que ni man maa doon géré mm-hmm. Moustapha Niass waaf na nee na ñoom Gakou ak ñoom Pape Sagne bu ko nekk candidat donc ci moom moo fi desoon su ma gañoon son maire de la ville son maire de la ville j'aurais quatre conseils ci moom mu ngi rawee gars yi six conseils te ñeen ñi samay xar la ñoom Baara Gaye ak ñeen ñi ak yeneen conseil def samay xar lañu kon su ma demoon damay gagné maire de la ville c'était ça. Mm-hmm. c'était ah sànq ci sa portrait wax nga ni euh, euh, bokk nga euh, ci sa déception bi gën a mag mooy ba nga nekkee prison dafa am sa ay xarit ñoo xam ne. dañ laa dañ la bàyyi ba nga génn. ay xarit yu ma tuddee doom. Mm-hmm. te seen doom yi xam nañ ñu tey. Mm-hmm. kenn ki ñu ko tuddee El Hadj Malick Konté mm-hmm. kenn ki El Hadj Malick Konté Mbaye des ak ay xarit yi ma doon àndal. durant deux gisuma ci kenn. ñoom yëpp ñu bàyyi la. waaw te ku ci nekk dafa naa ne seq naa yow teraanga boo xam ne. soo tegee yow rek ak yàlla. di nga xam ne man def naa la xarit la ñu def nag du mën ko jàppee parce que déception la ci man mm-hmm. man defoon naa nit ki sa xarit sa naqar nekk naqaram su tiis mm-hmm. nekk tiisam mm-hmm. parce que ñoom ba ñu amee problème ci seen place yooyu ñu defoon dañu jàppoon leen man nelawuma guddi ak bëccëg mais je crois que baal naa leen parce que ñoo ma gën parce que tuddee nañ ma doom te doom yooyu tey ñu ngi daw ci kër googu tey ji kër googu xale yu seen kayitu judd ñu ngi fi ah. kenn ki El Hadj Malick Konté Dieng la tudd. Mm-hmm. Malick Dieng moomu ko tuddee muy ex maire du Tivaouane Diacksha. Mm-hmm. kenn ki Youssou Mbaye suma xarit. Mm-hmm. Eh, kooku tóndoom sax eh, Youssou mbay ki ma tuddee seet si ma fi ak yaayam. donc déception mooy ñooñu ñoom war na wétali sama àdduna parce que foo naan ñooñu. fu ma deewoon rek ñu dee fa wala suñu xëm fa kanam. mais ñoo ma gën parce que tudd nañ ma doom. ak ñoom ñu ma def lii yëpp. dama gëm ni nit ku baax li kay jaar kaso. dëgg la maintenant euh, euh, nekku sa xarit yooyu kese nga mere mere nga war tamit waa parti socialiste ba tax na. waaw nga jóge fa créer sa mouvement tuddee ko wàllu askan wi maintenant est-ce que raison boobu rek li la waa moo tax nga ba nga ba nga ba nga mere leen. waaw mais Aïssatou. Mhm. gor gor rek lay mooy doon. Mhm. dama judd ci parti socialiste. en 1975 sama papa El Hadj Kabir Mbodj moomu ci dugal. Mhm. may takk fulaar ma xalifa Sall mii ñuy bokk. parti foofu maison du parti Tanor maa ko njëkk ci parti bi bi ñu daanoo en mille 2002 la Barthélémy Dias ñëw ma gis moom moomee ay tolof tolof dañ dem ba Kédougou seeti ko ñu def ay marche ñu bokk ci marche yi ñoom bu ñu koy juge ñu ñëw seeti ko kaso fi ba Kédougou man du ma militaire parti bi de j'ai le sang vert dama judd ci parti bi màgge ci ma toog ñooñu li ma àndal yëpp meeting bu ma sa am Pikine maa koy financé wala sama xaalis moo ci ëpp. kaar yi ni ma su mobilisé maa ci financé Tanor c'était mon grand frère. ne woon naa la ne billaahi wallaahi bu ñu ma dagg sama ñaari baaraam yi jamono wala sama nopp ngir Tanor fa lu ma def ko. waaye mais mu dugg prison ba génn du député parti socialiste du ministre du maire du Ousmane Tanor Dieng du kenn seet si ma lu may doyati ñooñu moo dee gor. parce que man dama gëm ni dund ak dee yàlla moo ko moom. Mm-hmm. yàlla moo ko moom. Mm-hmm. yàlla moo ko moom. feebar ak wér yàlla moo ko moom mm. àjjana ak safara yàlla moo ko moom bu dee nit a ko am ni ko jël mm-hmm. ma xam ne ñi wax dëgg yàlla du ñu ay ndaanaan mm-hmm. maintenant maintenant euh, est ce tamit nag monsieur le maire Malick Konté est ce que waa parti socialiste amuñu ay circonstances atténuantes euh, a yu mel noonu. Mm. tey euh, tey ñoom ñu bokk ci mouvance présidentielle. Mm. jamono ji xam ne président Macky Sall ngi wax. gestion vertueuse mhm. sobre et tout ça mhm. léegi nag ñoom xëy na dañ dañu xaw a nekk mal à l'aise wala dunde comme humiliation kenn si ñoom à un plus haut niveau di maire ñu dugal ko prison si yu mel noonu ñoom ba ñu njëkk a nekk maire maa nekk ci gouvernement bi ñoo mayoon Sacré-Cœur un euh, Sacré-Cœur trois jaay ko ah? waaw socialiste yooyu di nga ngandalu fii te yor parti yi papa socialiste ñoo ko joxe ñoo ko maye Sacré-Cœur un deux et trois yëpp ñoo ko maye ñoo ko jaay kon yow woo ko defal ndànk rek ba mais Dakar Ndiaye socialiste ñoo ko njëkk a géré. terrain bu fa joxee ñoo ko jaay. Pikine jaay nañ ci ay terrain PDS jaay na ay milliards ci ay terrain man 52 mètres de cantine la donc loolu du jaay nee naa la Pape Gora ngi nii lu ko dalee Lobat Fall ba tournalu Guédiawaye xoolal euh, corniche boobu yëpp. terrain bu ci gën quinze 15 millions la même armée lu Pikine yi <coughs> fi ñu ko dakkoon sax pour yokk dañ ko jaay man jaayu ma te ñoom tey ji kuñ ci audité woon tey ji ci gestion sociale si ñu nekk. ñoom ñëpp ay dem kaso kon boo xoolee affaire bi kafal politique la. ba ci Tanor Dieng ku def administration cinq ans buñ la uttee nga dem kaso. kooku xam nga ko. intellectuel yëpp xam nañ ko. xam kay ba fii moo fi am waaye ñoom ñëpp boo xoolee exemple bi ma la jox. le PDS cercle de feu la. <coughs> Abdoulaye ba mu faloo am ñoo xam ne jaay nañu fëgg jaay. Colobane am na ñoo xam ne amuñu suukar baad ak lu suukar màdd. tey ñooñu dañuy jël ay milliards. ba tey Karim ñu ngi koy taxal ci loolu. ba ñu ngi koy jugé donc loolu bu ñu ko xoolee xam ne cercle de feu kon ñooñu lañ jaay ci ay terrain ak lañu ak lañ leen jiiñ ci ay dubal ëpp na ay milliards te kan jàpp ci ñu bari. Awa Ndiaye ku dégg ko anamu tey bi mu demee ranger ci Macky Sall lañ ko tudd. ah jamonoy Abdoulaye Wade am na ñu fi nekkoon ministre du commerce. ñu leen di jiiñ ci ay 19 milliards ak yooyu ba ñu daal di yee jox nañ ay postes yu gën a kawe yooyu. Adama Sall anamu dama gis na fii ku ñu bëgg dàq dëxëñ denc la denc la waaye nag yàlla mooy bi xàkki mi mi te dama ne Serigne Touba dugg na kaso yontu yàlla Yusuf dugg na kaso Ablaye Wade dugg na kaso Nelson Mandela dugg na kaso actuellement Kade mi ngi kaso Aïda Diong mi ngi kaso ñeen ak ñeen Aziz Diop mi ngi kaso ñeen ak ñeen ñu ngi kaso ñoom Thierno Ousmane si génnuñu ñoom Aïdara Sylla génnuñu Malick compté mètres cantine te am grosité je le jure sur le Saint Coran que ne jaayuma fekk ma fu ñuy jaay <laughs> te te pidi ci gën a métti ma wax la ko mm-hmm. Pape Sagna Mbaye moom présenté Pape waaw naka naka nga mën naa delloo kooku li ko daaw nag jaay jox na pare maan kooku benn et puis benn mètre carré boo xam ne bii du titre foncier <coughs> du permis de couper du bàyyi te boo demee Dakar titre foncier yi huit cent mille francs le mètre la mhm. fii en face en yi benn ruq rek ma ñëw jaay la ko ci mètre un million te amul benn kayit yoo xam nga ne loolu vraiment ay sutu mhm. kuy góor tey jullit te nga xam ne gëm nga yàlla gëm nga yowmul xeyam mhm. xam nga loolu benn dëgg bawal bal ni ñu bëggee xaalis war dem finance wala ci huissier rek nga dem noonu rek. xëy rek ne compte la mais ñi jaay fii kër yeeg hectares yeeg affaires yooyu yokk ay 1800 mètres carrés ñu ñu may liberté provisoire ñoom daal bu ñu njëkkee njëkkee wooye tribunal ak yi ñu fi nekkoon ñëpp. ak ñoom Pape Gode dañuy may liberté provisoire ñu dem. man la ñu bëgg ma maintenir un parce que xam nañ ni je gêne. Mm-hmm. te su ma gën dama koy jël. dafa mel ne su ma déggee dafa mel ne parti social ci boppam sax dafa am ñoo fa doon gêné ñan la ak lu tax. waaw dama doon gêné. Mhm. parce que man dama doon wax dëgg. ba ba ma nekkee ko sax dégg nañu ne parti socialiste biir maison di parti bi def nañu fa station. Mhm. dama tiit ci tanoor. Mhm. daf ma bett. ndax lan ndax terrain boobu santul Dieng. santul Senghor santul Diouf mais parti socialiste la sant. carte yi ñu doon jaay depuis Abdou Diouf. fonds politique gu 2000 yi. yu fi Abdou Diouf bàyyi woon yi partenaire yi ñu aidé woon yi loolu su mënutul yor maison du parti bu heure bi ko luy c'est une yu ñu doon ko la ani carte yooyu ah millions yi anañu nañ ko laaj <clears throat> Tanor ak trésorier wu parti bi muy kan maam bu naa ma mhm. nañu wax xaalis yooyu fu mu dugg noonu dafay leer mhm. parce que aussi gère naa parti rek maa ngi dépense lii maa ngi dépense te dara leeru ci wax dëgg yàlla loolu du yoon. mais xanaa yéen euh, parti socialiste amu woon ay ay moment yoo xam ne da ngeen euh, def ay réduction des xool kii. man yi demoon kenn amuloon kenn. dictature rek la woon soo laajoon yooyu sax ñu commencé la maire yóbbu la commission disciplinaire comme ni ñu def ñeneen ñi. kon PS loolu fa am. Ah, waaw man ma ci laa juddoo ci laa màggee. Mm-hmm. xam nga ko. xam naa ko baax a baax. Mm-hmm. mais demal loolu yëpp bu ñu ko xoolee tey ji Léopold Sédar Senghor mu ngi bëmb ci biir bàmmeelam. Mm-hmm. Abdou Diouf mu ngi rëkkat lu mu joxoon parti bi nga jël lu toll ni parti socialiste maison boo xam ne Falaye Balde yal na ko yàlla yërëm téye ko ñu moo bëree fay moo Falaye Balde yal na ko yàlla yërëm téye ko moo bëree ñu di bëree ay lamb ñuy tax parti socialiste mhm. te kon même Falaye Balde sax war nañ ko sax benn monument tuddee ko mhm. ñu dem tey di fa def ab station di leen naan dañoo bëgg kii activité parti bi gis nga borom kër mu amatul dépense mhm. mënatul yor kër ga mënatul yor soxna nan laa mi ñam gàtt mbaa mu démissionné waaw d'accord boo mooy dëgg maintenant monsieur le maire parti social est-ce que à part parti socialiste est-ce que ndax yow ni ma ko waxee ba ngay dugg prison yaa ngi woon yaa nekkoon maire commune d'arrondissement fi ñu nekk nii di Pikine Est est-ce que waa AMS woon nañ la association des maires du Sénégal. non kenn seet su ma ki ma seet woon daal police. Mm-hmm. wax dëgg yàlla muy Malick Gakou. Mm-hmm. ñu ne fa à 2 heures du matin. Mm-hmm. ne ma wax ma xaalis bi ñaata la ma fay ko ma ne ko. jamais ndeysaan wax na la loolu. waaw kottu ma. effectivement rongoñ ma commencé wax dama jooy. Euh, parce que suma xarit la parce que Malick Gakou ñu xamul xamuloo ni. dañ daan ànd sax di def ay ay ay affaires. maanaam affaire yoo xam ne affaire yu xale la woon. du sàngara nag du dog du lenn. mais ay comme si ay jigéen ñeeg yooyu. non non yow <laughs> sama waay loolu mais mais moom moom moom boo ko ne Malick Gakou ginnaaw laay rek xam ne. dinaa ko wax. alors mais sama xarit la ku baax a ngoog. Mm. alors ñu ne fa ba leen proposé ma ne ko Malick mu naa ah, ma ne ko lu ma lekkul gisuma ko naan ma ko mm. mm. maa ngi koy gërëm de passage. ku mel ni ba xëy da ay dara aussi. yàlla na uldi si bi ñëw na fa. Serigne Fallou Fall bu ginnaaw raay wax dëgg yàlla ak Serigne. ab Lahad <coughs> Fall seet si nañ ma. Mhm. mais à part ça yeneen sëriñ ñi ma soxla teel a ngeen kenn seet si ma. sëriñ comme comme comme comme comme yan. xam nga xam nga xam nga xam nga man. Mhm. damay waaru soo nekkee maire chaque jour da ngay am ay carte daayira. Mhm. carte jàng damaa feebar. <laughs> damaa war dem màggal invitation damay dem màggal. damay dem nàngam. mais ndekete bi ma duggee kaso keroog bañ may jugé ma xool mbooloo mi ni ñu bëri ma ne ñii ñoom waroon a jaalis. bañ ma deferee ci kaso bi. dañ ma deferee. Mm-hmm. ma ne kon dugg naa bàmmeel. Mm-hmm. ba ma duggee kaso ñetti fan ñi ma seeti mooy ku allahu yi axat ak ñi ma bëgg. Mm-hmm. ñi ma seeti kon ñooñu su ma deewante dañ ma seet faat ci bàmmeel. te samay moromu doom wala samay jarbaan. samay papa ñoo ma jugé. sol seen robe ak seen karawaat yu weex. dugal ma ci kaso bi te kaso boo fa demee ni ko Abdou Aziz Malick waxee woon ku nekk sa taalibe nga fa. te kenn mënul ne sa taalibe gënal jaar nii. kon ku jaamul yàlla perte na. na ma leçon boobu. ba ma xam ni kon mhm. ku jaamul yàlla perte nga mhm. nañ delluwaat suñu xel ci yàlla mhm. Serigne Sos aussi maa di wax ni euh, bu nit ki amee di def teraanga bu ne su teelee ut sax seet ko ne ko marsa te kaso bi seeni taalibe rek ñoo fa nekk lañ leen di dem leen ziyaare te ñuy jàppale waa kaso boobu ay satu mburu mu ñuy lekk boo ko joxoon ab parental ñi la toll benn kilo pain vingt personne ñoo koy séddoo loolu xaa ñamu bët la <coughs> waaw ñamu bët donc maire Sénégal yi bu ñu baaxee. nañ def ajjuma bu nekk sax. kaso bu ñu mënta jege ci Sénégal. ñu jënd ay mburu yóbbu fa. togg sax ay ñam jox leen. xale ñu ngi leen jox ci kopp ndékki yi. la ñuy tibb jagaan bi bu la xeeñee nga wëccu bu ñu ko dooroon ci miir dafay kole. ni ñuy tëddantee noonu soo gisee góor jigéen di fa génn parce que ku doole ñi am doole di am lekk ñi. bu ñu tëjee yenn penn ñoo di ñoo di jëriñoo foofu leen jox lekk. Hmm. mooy <coughs> donc dañu de kaso yi. Hmm. parce que kaso yi nekk lañu wax mandat dépôt du mandat dépôt de. Hmm. c'est manger et dormir. koy tàllal ventre mm-hmm. di ko jox ceeb muy lekk di ko jox diwlin mm-hmm. di ko jox fu muy tëdd mm-hmm. taw tewul deful dara mais c'est matière dormir waaw ma bëgg nag ñu aussi que bu ñu enquête bi ñëw nit ki dañ ko defeere ko mu dem non bu nit ne diw lekk na sama xaalis mais procureur bi war na ànd dem defi enquête ci sur le terrain ba am lu leer mais da nga ñëw rek ñun la kaay nangam jagat jagat jugé la tëj la lu la neexee pare génn bàyyi la écoute ñu xam ne yàlla mooy bi hakimin alhakim te gëm naa yàlla ni dama lay wàttal tey benn biir Sénégal yëpp xam ko. Mhm. billaahi wallaahi tallaahi yàlla daf maa bëgg. Mhm. bi may xale ba tey gisuma ku ma fitnaal te yàlla jàkkaarloowul ak yow. ah. barke karim bi caaxaan. maa xam nga yàlla soo ko bëggee nekk ak moom. Mm. wóolu ko doo tiit pour nga xam du menace. Mm. ñoom ñëpp baal naa leen. ni Seydina Mohamed baaloon waa Taïf. Mm-hmm. ni sëñ Touba gaa gëm baal na woon nasaraan bi. Mm-hmm. te wallaahi azim ñoom ñëpp jéggal naa leen te yàlla mm-hmm. que defuñu ma ko. yàlla la nattu la woon déggoo ma ne ñu jaayoon fi ay milliards sàcc ay milliards nekkoon ci ay gouvernement toog fi di wax ana ñu du ñu ngi fi kenn jàppale. Mhm. kon ñu ñu jàpp yàlla moo ko ci ndax yàlla mooy fa yi di maa yuri. loolu am na solo déggal naa leen ñoom ñëpp. Ah, amin amin alors monsieur le maire ñu euh, ñu jàll nag ci beneen actualité muy ñu ngi doon wax léegi nii mbirum ay euh, AMS association des maires du Sénégal euh, Ablaye Balde nee na du remplir tombeeg président Macky Sall. Euh, di wax ne euh, maire yi nekk ci euh, partem di alliance pour la république nañu góorgóorlu nag dëgg-dëgg ba songu bopp AMS bi waa dëggantaan AMS la xanaa dafa mbax kuus lu ci neex ba ba ba ba gars yi am na am na am na am am nañu am nañu seen kes mm-hmm. dañuy voyager mm-hmm. am na ay prime de voyage mm-hmm. dañuy am ay partenaires Balde aussi démissionné wul dafa bàyyi gor la parce que amatu fa majorité. Mhm. ba fa PDS nekkee. waaw la majorité moo dem mu dem c'est logique xam ne il faut nga am courage wax ne mhm. na effectivement. Mhm. que nekk fa pour que ëllëg du am lenn lu ko gêné. ñu a liggéey mais l'essentiel xam nga lu ñor xam nga loolu yëpp du ci yor. maire yeeg ville yeeg arrondissement yi nañu liggéeyal pour la population. te may wax ni population sénégalaise am nañu droit chaque trois mois ñu dem gis le percepteur ne ko defal ñu binaawu lu maire yi liggéey. parce que ñooy fay gox yi. gis nga yu ci bari nañu contrôler secours yi. nañu contrôler travaux yi. yaa ngi dégg. waaw nañu wàcc di wax ak percepteurs yi. Mm-hmm. nañu waxtaan ak biéteurs yi. Mm-hmm. nañu waxtaan ak ñi nga xam ne aussi dañu fay def ay marché di ko gagné. Mm-hmm. nañu liggéey pour la population sénégalaise. Macky moomul Sénégal kenn moomul Sénégal. maire yooyu bu ñu liggéeyee daañu amaat beneen mandat bu ñu defee lu rafet. bu ñu defee lu rafet dañu leen di wàcc. Sénégalais léegi muus nañu. dootuñu def ay guerre civile seen carte la ñu war di xaar. waaw su ñëwee ñu bàcc la ñu bàcc la ku nga dem seen. Mhm. donc may wax ni sénégalais ku ci yaakaar ni Macky Sall tey président la Senghor falu na vingt ans. Mhm. Abdou Diouf falu na vingt ans. Mhm. Ablaye Wade falu na douze ans. jeexaluñu. waaw Macky day jeexal de. te gis nga enrichissement illicite bi ñu fi commencé. olof Ndiaye ko wax de <clears throat> ñoo ko fi tàmbal de. te Macky xamul ndax mandat bi dina gañ wala du gañe de. te ñoom ñëpp dañ leen càmbar. kon nañu liggéey bu baax. Mhm. te wattu àll réew mi te ñoŋal ko. d' accord loolu moom euh, message bu foor la euh, justement yaa ngi wax président Macky Sall euh, jamono ji même si mi ngi koy weddi sax wax dëgg yàlla muy def ak campagne électorale benn la ndax ma ngay dem seeti ji askan wi ci fin fond du du pays di diggaate dinaa wàññi lii dinaa wàññi lii dinaa yokk lii ak yooyu noo ko jàngatee. waaw xam nga ko war a campagne déguisée. Mhm. parce que aussi nag il est intelligent. Mhm. parce que bu campagne jege dootu mën dem au fond fond du Sénégal. te nag président yëpp encore du Macky rek laa wax de nañu bàyyi les promesses non tenues. Mhm. góor du digg lu mu dul def. Mhm. <coughs> dañu wax dañu wàññi ceeb bi. suukar café meew essence carburant du courant bi daan kuy xamaj. waaw loolu moo wàcce Ablaye Wade. dëgg la te ba léegi mi ngi kuy taxawee tey jii. muy kuy xamaj ñu taxawoon tey jii ne dañu def créer créer des emplois waaw comme mënul fay ay bourse nooy créer emploi mm-hmm. waaw mu am ñoo xam ne du ñu ay ministre mm-hmm. ay ministre giriw la ñu ah? waaw entouré ko di ko jay comme ni ñu def Abdoulaye Wade Fara léegi ñu ngi ci Macky Sall toog de Gourgodo ah, ay ministre giriw la ma présenté parce que dégg naa sax ñu naan Macky Sall amul ëllëg mm-hmm. challenge bu ko mën a taxaw mais Macky Sall ba muy génn ci campagne bi passé Tanor a ko ëppoon succès Moustapha Niasse ko ëppoon doole dëgg loolu dëgg. dëgg la ñoo gënoon siiw parce que parce que ñoo dem au fond du Sénégal. Mhm. Ablaye Wade 34 pour cent la bu ñu ko fàttee. Mhm. mais yàlla ak Macky Sall bu ñu doon wax tey ji mhm. tokaar la woon ci ci ci ci ci groupe googu. mais yàlla moo ko génne. donc bu mu ci sima Khalifa Sall. et je l'avertis. xam nga Khalifa sequma moom dara. bu mu ci sima Ousmane Tanor Dieng. gàkku mi ba jusqu'à la du contraire dina am fula day dem. ah oui. wala boog demalee mu xam ne il est mort ko wax. mais moom euh, euh, mais mais monsieur le maire Malick naka la mën a demee surtout que parti ba mu bokk di AFP nee na Moustapha Niasse nee na mi ngi xaar ba benn waa AFP di fit fit lu naan day dem jàkkaarloo président waaw xam nga lu tax Moustapha Niasse wax loolu mm. xam nga boobu juddoogu la wala nga nekk xale mm-hmm. c'était en 83 Mame Less Dia xam nga Mame Less Camara mm-hmm. am na ku ci demoon umra mm-hmm. ne toog na ci kaaba gi gént Moustapha Niasse nekk président Moustapha Niass bu gaa yi taxaw wax candidature histoire am. Mm. daf leen woo ci néegam waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. lu tax ñëpp ne pat. Mm-hmm. d' accord demul seen candidature. Mm-hmm. est ce que du waxu dafa am lu ñu ci gis. mooy président ba. est ce te Macky Sall tey jii. lu mm. yàlla di yont bi xamul leen du ñëw waaye yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér. Ah. te tey jii bu feebaroon mbaa leen ñëw. Mm. Moustapha Niass mooy nekk président de la République Sénégal Moustapha Niass xam na lu tax mu ne gaa yi bu leen yëngatu ah. gis nga dox boo gis sax am na gis nga kilifa yi am 75 ans. Mhm. Moustapha Niasse nekk na premier ministre. Mhm. nekk na fi ministre du nekk. nekk na fi directeur cabinet. Mhm. nee na milliardaire la. waaw li mu xëcc ñu fay le président assemblée nationale ngay jooy. ay sotti maa la dénk maa la dénk 1 bi damay tukki rek eh aywa maa lu ci jooy am. nañu waxante yàlla ndax Malick Gakou déjà mu ngi ternir image am ak Guédiawaye. Hmm. et c'était l'homme fort de Guédiawaye. mais naka la ternir image am. lu tax demul élection. léegi naka la Malick Gakou mën a wax tey moom Guédiawaye. dara mëntu ko. non moom Guédiawaye. même Y'en a marre yi fay kaas yi. dañ ñoom Guédiawaye lañ juddoo. même sax ñoom sàggal Aliou Sall gaañ leen te juddoowul Guédiawaye. yaa angi su xam ne politique. ki moom gox boobu moo war a falu. Mhm. Malick Gakou kat sama xarit la. Mhm. te wallaahi Aliou su ma sañoon tey sax mu nekk président. Mhm. lu nekk laay wax sama xarit la c'est mon ami d'enfance waaye nag na góorgóorlu. parce que li mu def moom wàcc na loxoom. te élection yi ñëw su taxaw wax baye boo rek mu dem ubbi euh, euh, mu tëddi affaire théâtre yooyu théâtre moo gën mu bàyyi te mu bàyyi tuuti. mooy ubbi seen. seen seen théâtre di théâtre politique mais mais monsieur le maire li nga li nga wax ni saa danga nga wax da nga wax lu am solo loo xam ne damay bañ xam ne damaa commencé jëm mag damay peer euh, ba nga ne. li nga junj noonu euh, euh, li ñuy wax junj doy na borom xel li nga ne président Macky Sall na jóg ndax euh, Moustapha Niass magu démb la magu démb la waaw mais jóg boobu si président Macky Sall mooy leen mooy dem seeti ji maa mën yeeg xarfa xuufa yeeg dafaru bu mu bàyyi xarfa fuufa bu mu bàyyi président Macky maa la ko wax président Macky Sall en tant que président war naa xarfa xuufa ma ne xarfa fuufa bu bu xarfa fuufa nu muy def Sénégal yëpp nga tey rajo yi Sénégal suba Marème Faye ñu wax ci fondation Marème Faye bi mm. c'est de l'enfantillage premier dame yi fi jaar yëpp seen dëkk defi vingt ans ba ci Ablaye di fi jabaram def vingt ans ñaati milliards moo jaar seen seen fondation dañ ko wax kenn waxu ko xam na li fi xew de mhm. te nit ki doo sulli mbóot ba mbóot sulleeku mhm. Marème ko fi deux ans déedéet kon defu ko fi ay milliards yu gars yi mën a wax mhm. man faralu ma leen ñoom benn mais nañ ko bàyyi dégg naa ñu wax Macky jabaram daf ko dégg mais ki ñu man samay jabar gi nii ah boo leen meree ma mere la ah, ah oui am nga ful la ah du tax dama nopp sama jabar man. waaw da ngaa sa jabar. ah oui sama awo ngi ni ci biir. ku ko may da nga may da ko. jaay ndax yi du ma lay may dama lay baax sama jabar bi ma ma ma rek la. te <laughs> monsieur yaa jonge. waaye nag <laughs> euh. duñ ma influence nag lu. waaw ci maire wala ci état. mosuma leen cee dugal. Mhm. sama rek. sama doom même su ma nekkoon tey président de la république Sénégal mm-hmm. ku ma bokkal ndeeg baay mbaa jarbaat mbaa ki doo jege su ma nekkoon maire sax doo jege foofu mm-hmm. parce que bu ñu ma jàppee jàppale la musiba mm-hmm. kenn kay mooy la pitan bi ñee ñu nekk ci kaw waaye bu ñu ñëpp na ràpp ci kaso bi <laughs> ku yuuxu ñu <laughs> mais monsieur le maire yaa ngi fi toj maintenant euh, euh, euh, buñ buñ dellusiwaatee ci ci ci président Macky Sall. ak i tamit ay alliés gis nga mais mais mais yaa ngi wax Malick Gakou ne bu bu amule fit ba mu taxaw mais kon yow yow la ngay conseillé Malick Gakou mooy na na defee Moussa Faye Niass 2017 mu taxaw. na génn. génn créer mouvement. créer mouvement waaw est am na fit bi. loolu moo ma jaaxal moo Khalifa Sall. seen fi dafa xaw ne fil fil ne xam nga ne aussi naa boobu ragal. bàkk ragal. ak faj ku rep. yàq say comprimé la. bàkk ragal ku ku ragal di ko di ko di ko tagg. di nga tagg ay maam ba ba ba ko ci jibril waaye tax mu yëngut. waxi dëgg dëgg naa dëgg. dëgg dëgg dëgg naa dëgg. na Malick Gakou génn xam ne yàlla mooy fal. waaw Moustapha Niass il a 76 ans. jeexal na dëgg dëgg yàlla. mais 9 milliards nag aussi bu ñu la ko dénkee ci caisse noire. te kenn du contre caisse président de la République du Sénégal. waay waay waay waay foo jaar xam nga xam nga foo jaar nga naw raabin. di nga naw raabin par force. fii tànk fii tànk fee Moustapha Niasse il n'a il n'a plus rien à perdre te boo xoolee AFP du parti entreprise la. Mhm. naka la Moustapha Niasse mooy taxawee ne bu kenn déposé candidature am. c'est de la dictature. waaw pure et simple. Mm. mais nag fee fee euh, euh, euh, parti socialiste tamit. foofu moom patrimoine la du du parti ndax Tanor Dieng moomu ko waa PS ñoo ko moom. ndax nattal ma natt la ay actionnaire lañu. maintenant Khalifa Sall tamit dégg naa la ci sa benn interview nga mel ni ko am déception ci. ñàkk fitam waaw parce que moo tax am fit tamit xalifa. xalifa ñoo màggandoo. Mhm. moo a mag sax ah. dafa ragal waaw. la. xam nga xalifa. Mm. dafa defar xaw ma taxaw Dakar. waaw taxaw Dakaru. yàlla may ko ndam. waaw waa Dakar rafetlu te xalifa kaay ma wax tey. Mm. képp kuy politique fii ci Sénégal ma si benn secret. Mm. soo booleen ak ñoom Moustapha Niass. ak ñeen ñëpp seen xalaat. <coughs> moo ndax politique. waaw non moom kay xam naa ne. te boo xoolee actuellement dans le. ñëpp sénégalais. Mm-hmm. soo ci soo soo soo ubbee. Mhm. fekk ci photo waaw waaye tanoor di tax mu def renouvellement yi nii. Mhm. xam nga renouvellement comité nga war a commencé. renouveler ko waaw def sec sous section. Mhm. def section def coordination te bu ñu nekk war na doon 3 mois ou 4 mois soo jël nga def union de Dakar. nga jógee noonu daal dem comité central. boo jógee comité central def bureau politique. boo jógee bureau politique bureau politique waxtaan ak comité central ñu dem congrès ordinaire. seet kan la ñu proposé comme secrétaire général du parti. ñu dem congrès extraordinaire fal ko. mais tamit xam nañu bale loolu yëpp day yéex. te bu ñu commencé foofu dafa ay problème maa ngi remercier Aïssata Tall Sall. Mm-hmm. c' est la gendarme du parti socialiste. elle a osé elle a non dama ko fan. waaw dafa ñeme. non dama ko fan mhm. na xam ne am na jabar. na ah, ko ah, xam na ko mooy xalifa moom it. Ah. buy xaar xalifa sax dafay mel dafay bootu mm. moom xajul ci ginnaaw kenn. waaw dë ndaataan la dë dë dëgg la dëgg la. Aïssata. Hmm. xajul ci ginnaaw kenn. gënëm la xam nga waxu gënëm xajul ci pante rek. déedéet xajul waxu gënëm. Hmm. Aïssata xajul ci pante rek. déedéet waaye na daal waaye ñu seet. foog mu date bu daagoom sa daagu rafet la yor daagu rafet la yor mais mais mais nag monsieur le maire est-ce que Ousmane Tanor Dieng du bett gaa yi. ñoo du bett gaa yi waaye 2010 mu taxaw na samp samp ndëndëm. ah xam nga samp ndënd sañ na ko de non samp ndënd aussi hmm. gàcce rek moo ci amat ah ndax lan 2000 moo nekkoon directeur campagne am ah, am ah, ah kii Abdou Diouf. waaw xala nga wuñu. bay xa bay xarañ. 2007 dañu doon périer. dañu doon périer bu baax. 2008 dañu doon jiri. dañu doon jiri. dañu doon jiri moom dañu doon bu baax sax. fu mu ne ay néew la ñu. baam ne rek a bu taxawee kenn du ko xool naa la. na gëm yàlla. te xam ne li ko yàlla doon ci tànn yëpp jox na ko ko. mais monsieur le maire yow may doon dara tanoor <laughs> mais nag mais nag mi Dias mais ku baax la Barthélémy mais mais foogoo ne Barthélémy Dias hmm. euh, buñ ko may tuuti kanam bu ñu may tuuti kii euh, parce que temps yi Barthélémy mi ngi yar boppam léegi gis nga ko léegi nu mu téyee te réglé hmm. bàyyi kii euh, feedback yooyu wàññeeku na vraiment mi ngi léegi mi ngi nekk homme d'état foogoon ni kii Barthélémy mi en 2019 peut-être wala 2000 xaw ma ban an ban élection mooy ñëwaat après 2017 sama calcul yi yal na ko euh, yàlla jàppale comme ni ma jàppale parce que comme fu mu ne actuellement liberté provisoire la nekk hmm. te je crois que ni aussi parti socialiste ak moom ak keneen hmm. yàlla moo xam mais je ni li ñu laal rawuli bët mais man daal ci Aïssata laa gën a teg Aïssata daal ci nga misé ak Gakou mais Aïssata ci laa gën mm-hmm. euh, gën a parti socialiste waaw mais mais beneen bi mooy <coughs> euh, euh, Benno Bokk Yaakaar ak Macky 2012 gis nga ne jamono ji président Macky Sall mi ngi leen woo à gauche à droite di leen neexal di leen naxtaan ak yooyu di leen a baab ci suuf euh, euh, euh, foog nga ne ñaar ñooñu am nañu mën nañu jàppale président Macky Sall ba ñu faluwaat. dañ ko war. Macky 2012 ak benn Bokk Yaakaar. ay warkat pire nga. ah. xam nga leen indi. Hmm. place. ah que la ñu xam nga olof Ndiaye nee na ku hmm. bàyyi say mbokk. Hmm. buñ la songee nga daan. waaw bu baax sax. PDC ngi nii. Abdoulaye Wade. moo def Macky. directeur Petrosen. Mhm. moo ko def ministre de l'énergie et des mines. Mhm. moo ko def ministre de l'intérieur. Mhm. moo ko def premier ministre. moo ko def président assemblée yàlla fal Macky. même Macky sax suuf su dee bu ngi def ni enrichissement du Sud bu muy def. d'accord nañ ci. mais bu mu xuloo sa famille libérale. kan moo taxaw ci côté bi ki ka yaroon. daan ko jël daan ko commandé mu Idriss Seck. di ko xaar. Tanor day nekk candidat. Khalifa mun naa mu nekk candidat. Aïssata mu nekk candidat. gàkku mu nekk candidat ëllëg ñoo ñëpp bu ñu ko songee ay mbokkam dem coaliser ak ñooñu moom fu mu jëm. moo ma jaaxal. nee naa ko. Mm-hmm. moo dafa mel nekk du xam nga camion Scania la. ci temps yi guddi. <laughs> non naa da nga koy dégg. waaw xam nga bu ñu chargé mat dem ba ga dem ba deseeru gànnaar ba le paan fa. waaw ba kanam dugg kooku mën nga ko xëcc wala nga. déedéet. voilà maa ngi parce que li Sénégal doon xaar ci moom gars yi dimbaluñu ki xamul tax. Mm. dañu nekk ay trait alliés yi ñu doon wax ni muy Benno Siggil Sénégal ak Benno ak Moustapha Niasse waaw du dara est-ce bi ñu attaqué Macky Sall di attaqué jabaram wala ñu def marche wala Abdou bi mu fi ñëwee tey def marche dañoo xaru gis nga Macky gis nga Moustapha Niasse woote place Obélix def gis nga Ousmane def ñoo ci ànd non non boobu dafa jëloon somnifère da doon nelaw yaa ngi dégg gis nga Macky fu mu ne mm-hmm. xaw ma daa jëli somnifère mm-hmm. xaw ma dañ kaa piqué na yeewu gis nga ñooy jëli place am de fauteuil bi la lorñee. kon kon kon même même Ousmane Tanor Dieng mi ngi mi ngi lorñee. barke Seydina Mouhamed président côté la parce que Tanor teraanga bu ne yàlla may na ko ko nag. Mm. te Tanor day pour déposer candidature man mi wax yow sax man mi wax yow. Mm. mais place Macky bi soxla naa ko man duma fen mm-hmm. dama koy ñaan yàlla. yàlla moo koy maye. donc sama mouvement bi ma créé aussi ci bor yooyu laa jëm. Mm-hmm. mais na leen Macky mu yeewu amul allié. te ma wax le professeur Malick. ma Malick Ndiaye. Euh, mu baal ma suma suma frère la dama ko admirer. Mm-hmm. un homme d'état doo mel ni tame sànqal bu ñu xam tame sànqal boobu dugal ci ay senn gis naa ko muy wane benn feuille bu ñu ko joxoon ci conseil des ministres jox ko xaw ma kan moo ko jox ne ko pour que Macky ne nañ ko dànkaaf loolu kenn du ko gën a tere gis nga parti socialiste ak lu ñu ñàkk ñàkk caaxaan mës nga dégg rek fu ñu weeree Tanor wala ñu weer Abdou Diouf mm-hmm. wala di wax lu ñaaw non ñoom Tanor ay ndaanaan lañu foofu ñoom bu ñu mm. ko dégg waaw la ma tax temps yooyu journaux yi amul ay waaye waa Abdoulaye Wade moo ñu mais léegi nga taxaw léegi mm-hmm. loo xul président sax bu doon dossier sax nga weer ko mm-hmm. su sàccoon xaalis yaa ko njëkk weer mm-hmm. jamono boo gisee ñu may ko un million yaa ko njëkk wax gis nga nit gémmiñ sama papa ne gémmiñ du mbuus waaye mat naa yow de imaam yi nee nañu soo nekkee kilifa dee ko yërëm boo xamee secret bu ko weer suturaal ko topp ko ànd ak moom ëllëg yàlla jox la waaye Sénégal xam nga ko yàq léegi weerante yàqante jaayante mhm. homme d'état mën nga wax lu nekk mhm. démissionné lu tax nga démissionné man kat gisuma lañ doon yaakaar bàyyi naa mhm. lan moo xew nga ni pat waaye yow li ma ci naqari yaa ngi wér nit génne benn issivem ci télévision ndemaat encore ñu gis la Macky Macky 2012 nga bokk ci ne kërëb kërëb na Macky xoolaat boppam yab sénégalais yi la xam nga yab sénégalais yi kon kooku xam nga ko ku ko joxaat léegi mburu mu xam waaw waaw xam puis mbuuraake mu xalte na mut bi ay sotti muy fond loolu mais mais mais gisoo fi ñu toll nii mais homme d'état amu fi. Ah, homme d'état amu fi kon fi lu fi am kon Sénégal. lu fi am. Hmm. mais tànn dof la. xam nga tànn biir dof mooy lu muy lu muy tase. mooy la waaw waaw ñëpp ñi. non tànn biir xam nga muy tase ay non non bu tase. Hmm. doom yi ak bàjjen yi ak maam yi ku nekk da nga yëkkati sa cër naan xoolal sa bas bu ci gën a rëy xam nga tax dañuy weerante mooy weerante gi ma wax. mooy weerante bi. Abdoulaye du ko naan du weerante. weerante. lui et moi lu ko indi ci Idrissa Seck du weerante. weerante. ah. Hmm. ñi àndoon Abdoulaye est-ce que mos nañu ko wax dëgg. déedéet. actuellement Macky Sall bu ñu waxee naan Macky Sall amul challenger amul ko ko ko ko koy concurrencé xam nga ne ñooñu ay ñuwaalu gaay naak la ñu bëgg a doon de xam nga ne ñooñu ñu ngi koy nax te bëgguñu ko ñooñu mooy ñi ngay wooye ministre griot <laughs> griot nañu wax excuse du terme ce sont des prostituées politiques loolu kenn du ko wax kilifa bul xeeb mukk adversaire am dañu ne il ne faut jamais sous-estimer ton adversaire même bu la wóoree sax ki yaa ko mën sax ànd ak moom ba gañe ko ba pare parce que wóorugul ndax olof yaay fu ne bëre reenu ñàmbi la kenn xamul fu muy daan yi Balla Gaye ñaata temps la fi daan Mhm. daanu yëkkati. waaw ku ko yaakaaroon ku ko yaakaar dina ko daan di ko gëm. Mm. kon yàlla mooy fa aadi li ma yurit. nañ delluwaat ci yàlla waaye. li nga wax foor na waaye monsieur le ministre ya euh, ngi euh, euh, bëgg a nekk ministre. damaa jum ne la monsieur le ministre. incha ah, allah yal nekk. Mm. xëy na Macky la président. ah ci kaw lenn. Ah. ci kaw ñu liggéey Sénégal ci kaw mu jub. Mm-hmm. waaye bu fekkee tappale waaye yéen ñaañu du ngeen noppi. bu fekkee tappalekat yi lay àndal. Mm. xuusmaa ñàpp yaa ngi dégg. Mhm. giro yi. Mhm. du ci bokk. mais mais léegi Sénégal am intérêt. mais léegi mhm. euh, yow excluroo quand même euh, président Macky Sall toog seetaan suñu émission bi xam na yow mii valeur nga. Euh, surtout na saf nga xorom parce que xam nga ni ma ko yàgg waxee rek. président Macky saal ña muy àndal ñu si bëri dëgg-dëgg dañoo xaw a lewet yow saf nga xorom am nga fit ñeme nga wax. dégg nga dañu ma ne soxna leen kii nga am nga charisme. donc bu bu seetaan suñu émission bi woo la ne la vraiment monsieur le maire dégg naa la ak yooyu. bëgg naa kaa ñu liggéey. pour ñu liggéey réew mi. Mm. ma taxaw liggéeyal sama parce que man avant tout la patrie. waaw liggéeyu ma ngir Macky Sall. Mm. damay liggéey pour réew mi pour que Sénégal suqaliku. Mm. xam nga dañ ma ma jox tey benn affaire ñu ngi xeex tey Macky. est-ce que su Macky daanoon Sénégal sombre kan mooy mucc. moo jaaxal ñëpp. waaw ba ñu def alliance boobu ñuy wax. bay fal Macky Sall dañu kontoon ci expérience Moustapha Niass. Mm-hmm. expérience Tanor expérience Khalifa institut ak ñu ko wër ñëpp. Mm-hmm. que yàgg nañu fi ay ay dinosaures lañu ci ci ci mm-hmm. ko dimbalee. tey jii bu ñu deful comme Japon. Mhm. comme Italie. Mhm. ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay. Mhm. jàppale Macky Sall cinq ans yi ba Sénégal xaw a sukkandiku. ko que Sénégal dafa suux comme bateau Joola. muy ingénieur bi muy médecin bi muy économiste bi. moo tax ma ne ko na wooyu Mamadou Lamine Loum. na wooyu Moussa Touré. na wooyu Djibril Ngom. yaa ngi dégg ñoo jàppale ko ci waaw na wooyu euh, Ibrahima Fall. tous ces grands économistes là ñoom ñu bañ a rëy. surtout ak ñoom Tanor ñëpp ñu summi seen mbaxal yi. seet ni Sénégal a ngi yàqu. waaye ku ci nekk tëddaguloo sax soo neloo sax yaa ngi ci naan président de la république <laughs> kañ laay falu dañu tiit te yàlla mooy fal. ni ñu ko jàppale te yàlla tax ba yàlla suqaliku tey boo xoolee njàng mi soxe na. Mm-hmm. bourse amatul ceeb bi yokk na. Mm-hmm. tey boo demee tey ci ci jaaykatu caakiri mm-hmm. timis du jeexal. kuy jaay fonde timis mu jeexal. ndambe amatul Sénégal ku añ doo reer ku nekk doo reer. carburant baa nga rey ñun ñi étudiants yi amatuñ seen bourse ku feebar doo faju Sénégal a ngi tas. ñoom ñëpp seen xel yëpp mooy nekk président de la république Sénégal. Mm-hmm. te buñ fi nar a xëccoo xam ni def mm-hmm. jëli koo xam ne kii mosul nekk président. Mm-hmm. ñu jox ko chance ñun ñëpp ñu ànd ak moom pour que mu réglé Sénégal Sénégal tey jii. dem na vingt ans en arrière. waaw ah, ce qui est dommage. gis nga Abdou Diouf. ndeysaan ndaanaan dem na. ndeysaan un homme d'état dem na. un homme expérimenté dem na. fa mu tegoon Sénégal kenn xamu ko. wallaay ndeysaan xeex nañ ko dem na. waaw kooku mooy Abdou doomu Kumba dem l'ancien gardien de la constitution. yàlla na ko yàlla jàppale gis nga ne su ma ko mën tëggaat tey mu nekk xale ah. wallahi ma tëggaat ko indi ko daanaa na ngoog goro ngoog da nga bëgg monsieur le maire ah. maintenant euh, euh, euh, yaa ngi wax sànq Ablaye Wade ak ñoomin seen mais gis na tam président Ablaye Wade tamit moom wax dëgg yàlla tamit saa waxee suba rek ma ngay ma ngay ut karo ga mu yokk ci xar mi <laughs> dégg nga ko léegi mu naan ma ngay waajal meeting ci novembre bi dem ba promettre président Macky Sall novembre boo xam ne xalak safar ndax loolu taxawaay la boo xam ne mën nañ ko mën nañ ko xaar ci ancien président la xam nga Abdoulaye ba muy nekk dans l' opposition ci Abdou Diouf moo daan toj kaar yi ah. moo daan taal pone yi da yàgg moo leen yàq furuj mm-hmm. na weesu foofu mm-hmm. boobu muy wax mm-hmm. damay laaj lan la fa war def boobu moo jaaxal ñëpp bu dee ceeb bu yokk la diwlin bu yokk suukar bu yokk gasoil bu yokk carburant essence étudiants yi amuñu Balla Gaye rey nañ ko université élection yi passé rek

sama waay la. daf ma teeru kaso. waaw gis nga procès ah bi ma wàccee. une du matin la ma teeru. ne monsieur le lépp cabale politique la. je vous ma ñëw mu présenté ma yaayam. Mm-hmm. présenté ma ñëw ma dikkee pour ñu jàppale ma. donc Karim tey Sénégal yëpp ñu ngi koy seen parce que ñu ngi jugoon ci 4000 milliards. 2000 mm. milliards milliards ñu ngi dem mais nañu bàyyi que justice def liggéeyam. Mm-hmm. mais su fekkee Abdoulaye dafa bëgg a ñëw pour taal réew mi. Mm-hmm. parce que doo danañ ko jàpp bu fekkee deful danañ ko bàyyi man mi waxee parce que Karim tey ji kenn taxalu ko dañ koy enquête actuellement mm-hmm. kon kenn mënu gën na sàcc la mm-hmm. donc Sénégalais yi maa ngi woo sëriñ sëriñ si aussi mm-hmm. nañ ñu dimbali bu góor jigéen ni xus dëkk bi du wax jaaykat drogue yi du ñu wax prostitution bi duñ ci wax ñu ñuy rey nit duñ ci wax mere naa Macky Sall ñëwul place sàngam et puis article 80 bi ay Aïssatou d'accord naa ci mais d'accord tuma ci ndax doomu sëriñ si dañ naan ñun ay doomu soxna ñun ay doomu lañ ñun ñun. te li ma jaaxal ñoom. bu ñu deewee ñu ne nañ ñëw sanguñu. Mhm. nañu jiite. Mhm. nañu dugal ci ci bàmmeel yi. Mhm. nañu yóbbu na bu ñu gisee su ñu yu mel ni ay soto ñu rafet ñu ñaan ñu may leen ko àddiya ñu am ci ay doom nañu wax dëgg rek. waaw buñ ne ñu ñëw deqi seen tool ñu deq ko. bu ñu ne àjjana ñu ne ñoo ñu koy may. buñ ñëw toog ci kaw ñu toog ci suuf. waaw bu ñu xëccoog ñun ay député ak ay maire ba président de la république waaw ëllëg ñun lu ñu amati. waaw xanaa kooku dafay nekk dafay dafay nekk esclavage mm. laaj bi de forme dama ni. Mm-hmm. nañu toog ca derrière ñaanal ñu. Mm-hmm. parce que ñoom aussi dañu dem ci politique ba pare. Mm-hmm. ñu attaqué sa parti nga attaqué leen seen taalibe jóg. waaw waaw loolu la nag loolu dafa lakk ay tribune. ñu tëj ko 6 mois te bu Abdoulaye était président. te xaw ma ndax moo ko lakk dañ ko ko wax. mais gis nañu ce qui s'est passé à Touba. waaw ah, si ci am. article 80 bi su fekkee ni dafa am ñoo xam ni doomu sëñ dañu attaqué Macky Sall mm-hmm. di wax ay affaire mm-hmm. te kenn leen jàpp mm-hmm. Bara Gaye fekkee article 80 bi ko fi am marche ak kooree nag ay mbokkam mbaa nga taxaw ñu wax ñu jóg taxaw ñu wax defante jaayante sëriñ si nag maa ngi di gërëm di leen sant waaye ñoom it nag buñ jël loolu yëpp ak teranga ñu leen jox yëpp te buñ leen addiyee suba nañu tabax Touba wala Tivaouane wala Ndiassane wala fu nekk ñu mobiliser ay milliards jox leen bu ñu ne ay keesu daal ñu jox leen waaw buñ bëggee nekk maire suñu kaw nekkat député suñu kaw nekkat président suñu kaw waaw bu yàggee ko ñu lu ñu def jël lépp daal waaw jël lépp kon ñu ñu nekk léegi mhm. te doomu soxna ku sa ndey toog sa kër bàyyi mhm. defoo fa waxoo fa la ñoo defoo ko doomu soxla lañu mhm. seen maam yi liggéey nañ fi loo xam ne li ñoom duñu torox nañu bàyyi menace boobu ñuy wax donc article 80 bi fu mu bi mu waxee dañ ko dañ ko tëj parce que dañ ko ëpp doole bu ñu di fëtt ay barrage di lakk ay kër di wax lu neex président de la république Sénégal taati kat te koo si jàpp rek ku nekk téléphoné doomu soxna nangam doomu soxna nangam soo ko bàyyi wulee dinaa wird dinaa dugg xal te bu dee doomu jàmbur yi fecc kaso bi dell kenn du ko te kenn du leen seeti nañu seetaat nag adduna bi ñu xam ne adduna baa ngi bëgg a tas man de naa la wax leen ba ma génnee kaso ba tey jii yàlla laa gëm Seydina Mouhamed mooy sama wasila alxuraan bi mooy sama git kon kon léegi dama toog ci sëriñ la li ma la ci ay cislaay yu mel yàlla noppi na ay satu yàlla ba mu la bindee keroog mu la bindee mm-hmm. trois mois sa biiru ndey mm-hmm. la fi ngay jaar bind mm-hmm. la ko ñaan nag am na yàlla moom tànn seen loxo ma ñaanal leen kontu ma seen ci de samay xarit lañu bëgg naa leen topp waaye ñoom nañ ñu may ñu ñam ci lem bi ndax ñun lu ñu mën a am lu dul maire ak président di ñëw ci jàng yi nag ak ci daayira yi nag ak ci màggal yi nag man nag bu dee àjjana la mbaa safara mbaa dund ak dee mbaa feebar ak wér mbaa am ak ñàkk mbaa fal ak foole gi ku ko am ci doomu aadama jëlal bul ma ko may bu leen ak yàlla ko moom soxla naa ko sama borom ci barke Seydina Mouhamed non monsieur le maire euh, euh, euh, sa émission am na solo la nga mujjee wax tamit lu am sens la noonu la émission bi jeexee xanaa ñu bàyyi la nga tàggatoo Sénégalais yi la bon li may tàggatoo maa ngi nuyu sama benn rakk bu baax Ablaye Guissé mm-hmm. moo yor euh, euh, mouvement parti boobu. te nekk tali ma xale bu baax nañu. di nuyu parti d' opposition sénégalais yëpp. di nuyu sëriñ si di nuyu surtout clergé bi. maa ngi nuyu Adrien Sarr. est ce que mos nga dégg benn abbé. wala benn catholique bu taxaw naa ñu ngi xëccu député wala maire. wala maa ngi taal dëkk wala naa ngi taal dëkk pourtant sont des bëgg ñooñu ay référence dañu ay miroir la ñu xool ci ñoom. donc may nuyu sénégalais yëpp. di nuyu Pikine Est di nuyu Pikine yëpp. di ñu ñëpp di wax ni parti yëpp nañu bàyyi dañuy taal Sénégal dañuy rey Sénégal ndax c'est intérêt personnel du yoon Abdoulaye ba mu fi nekkee ku ko mos a dépassé dugg ci kaso bi lu ñu doon wax tukki mhm. tali tëj télé tëj mhm. mhm. loolu lañu doon wax moom it tey na bàyyi yoon atte lu yoon def ñu xam ne loolu la duñu nangu Sénégal yi taxaw naan dañuy taal Sénégal sëriñ si nañ ci wax waa droit de l'homme aussi may tàggatoo ak ñoom gis naa bu ñu fi reyee nit du ñu def marche ñaata femme lañ fi rey. ah ampagaay ñaata lañ fi agressé. mais bu parti jógee ku nekk jóg naan kii laa jàppale. ndax mbokkus beeg moo yaakaar mëkkal tënabut bi. nañ def ay marche parce que Sénégal tey crime yi bari nañ fi. agression yi bari nañ fi. may wax Macky Sall ndax xam ni du yàlla du yonent bi. te yàlla mooy fal te xamul kañ lay jeexal. mbokkam yooyu nga xam dañoo falu nañu ak ministre yooyu nañu liggéeyal Sénégal. te Sénégal yi nañu bàyyi Marème fay Macky Sall mu mel ni Feuilleton Idriss Seck Ablaye Wade. Mhm. yooyu c'est banni. Mhm. na ñëpp indi seen expérience. Mhm. ànd ëllëg nag ku fi Sénégal yi xool ba wóol la. ñu fal la. maa ngi sant nag sama yaay parce que sama papa gaañu ne mu ngi àllaaxira. ndeysaan ay surtout ma yaay daf maa bëgg. Euh, di ko gërëm bu baax a baax. Euh, di la gërëm yow. bu baax parce que ay surtout dama lay ñaan yàlla euh, yow sa émission Wolof Njaay dafa ni xam nga le donc may ñaanal Youssou Ndour aussi. di ñaanal télé yi fi nekk yépp di wax ni tey jii Sénégal jàmm rek la bëgg. loolaay dëgg ku amul pétrole. amoo or. amoo jaakaar mm-hmm. eh, amoo jama. Mm-hmm. amoo cuivre. Mm-hmm. say fer génnagul. pétrole bi ñu fi wax nii. ci Senghor Senghor gisoon na gisoon na pétrole. ba tey kenn exploité ko. Abdou Diouf gisoon pétrole. léegi naa ne gis pétrole. ba tey man xaw ma pétrole bi day xëy seey xaw ma day xëy duggaat ci <laughs> day xëy delluwaat waaw donc. loolu boo ci bëggee xeer ak xeex ak guerre civile. foo ñu jëmee. waaw moo ñu jaaxal maa ngi nuyu Youssou la nuyuwaat. Mm-hmm. di nuyu équipe bi nga àndal. Mm-hmm. di nuyu sama soxna yi. Mm-hmm. di nuyu sama doom yi ak sama jarbaat yi. di nuyu bépp imam bu nekk Pikine. ak Sénégal imam yi nekk ci booru Tukulóor yi nekk ci booru Texaco bi. di nuyu Birame Ndiaye. di nuyu Paul. di nuyu ñëpp ñu nekk ci kaso bi. di ñaan yàlla ñu génn. di ñaan Sénégal Sénégal am jàmm. amiin waaye euh, Sénégal am jàmm ñu koy ñaan. Euh, euh, di ko ñaan nag sunu kilifa yooyu nga xam ne. Euh, ñoo ñu tedd ci wàllu diine di kilifa diine yi nekk seen yëpp yëpp euh, fàttewuñu église bi fàttewuñu imaam yi képp daa koo xam ne yaa ngi yëngut ci diine rek euh, ñu ngi lay taalal suñu loxo di di sàkku ñaan ndax jàmm seen jàmm ñoom suñu suñ bos si la xaj ak bosu réew mi ñu lay gërëm bu baax tamit monsieur le maire Malick Konté di la gërëm ci ay raisons yu bëri bëri bëri bokk na ci courage bi nga am ñu koy naw ndax wax naa la ko ba ñuy préparer émission bi fii Sénégal am na ñoo xam ne bu ñu bu leen nattu dalee ba ñu dugg prison bu ñu génnee dañuy làqatu bañ a wax mais yow ba nga génnee yaa ngi waxtaan ak sénégalais yi euh, di joxe sa xalaat euh, sénégalais yi dégg sa xalaat ndax ñoom ñooy jugé nag wax dëgg yàlla ginnaaw yàlla ak bi nag sénégalais yi ñooy jugé nag euh, te yaa ngi waxtaan ak ñoom mm. ñi lay dégg nag ñu ñaan rek déggin ba nekk déggin mu rafet nag la ngay wax mu na dal ci ay nopp dëgg <laughs> uh-huh. euh, loolu am solo ñu lay ñaanal vraiment di la encourager tamit euh, ci ci ci voie bi nga nekk ndax voie bi nga nekk moom dara dalu ko dara lalu ko loolu rek dëgg uh-huh. euh, moo waral ñu def suñu déplacement jóge uh-huh. fa ñu jóge ñëw ba fii ñu nuyu nag waa Pikine ñëpp ndax ñu fii la ñu bokk mais aussi ku ci sentir ne offensé naa la rek nag ma baal. waaw waaw yow hmm. yow yow ñëpp lay baal nag xam hmm. nañ ne euh, fukk ngay waxee ak hmm. nekk sa xol. nekk sa xol nag boo koy wax moom. Euh, na mu na nga ko yëgee nag noonu lay génne waaye borom xel ñoo lay dégg. kon dinañ xam fi waxee ñuy jaajëfal. bu baax a baax a baax sa waa kër ñi fekk ci si biir kër gi. di jaajëfal tamit sa dëkkandoo yi waa Pikine yëpp ni ma rek euh, laa bokk. yaa ngi gërëm sa yaay ku ma dégg kuy gërëm yaayam rek sama xel lay day dellu ci sama bos. may a sama yaay bu baax baax sama rakk yi di gërëm nag ñi ma àndal ci ci liggéey bi. surtout euh, jàkkaarloog sama doom ji Jatu Ndiaye. Euh, ak nag euh, dëgg-dëgg si la ma Matar Mële. Hmm. nga xam ne moom la xale jigéen ji wooyee boo goos boo gaa dëgg-dëgg noonam yi da ko wooyee Modou Mbaye <laughs> ñun suñ yoon nekk si lool ndax ñun dañ ko bëgg. di gërëm nag bu baax nag Mamadou Dia mais le jeune marié nga xam ne wax dëgg yàlla moom moom daal liggéey rek moo ko ñor defar ba mu baax suñu suñu rakk jooju ak nag. Euh, euh, euh, kii wa tur bi laay fàtte nu mu tuddati alaaji saf na neex nu mu sax kii sëñ Mor Xarma moo nekk nii xale yi da ko woy alaaji saf na neex ñu ñu remercier bu baax a baax nag ca montage ba Bobo Chim kooku nag mooy papa Chimel Diouf mbokk yi face to face beneen dimanche incha allah.